keneen kañuy fonk nag lan moo tax ñu koy fonk mhm. baaxoo bëggoo keneen ku baax dangay bon keneen baax déggoon naa gorob jéeg bu koy taasu de mu ne la <laughs> te am na si ñi nga xam déggoon naa jéeg bu koy taasu de wax <laughs> am na si ñi nga xamante ne aussi ay cër yoo xam ne jéeg boo xam ne euh, gorom day de njëkkeem non wut jëm. Mhm. Mhm. feccor goom quoi da doon xew. Mhm. di ñu koy taasul di ko feccal di ko defal lépp mu daan mu da mu fecca fecca fecca fecc fecc ba di jësum taxaw ci digg géew moom jeeg bi. mooy yi nga xamante ne si mooy jéegu lañ sati waaw ci digg géew bi xajal ma ma jàll may may ma ñaaj li ma sëf baa bari reeju neex lool ans yu ni faaj li ma sëf daa bari xam nga bari mbokk cib sëy mhm. xam nga nañu koy taasoo waaw géwél nga xam xam naa waa ab jéeg war naa taasoo loolu daanne taxaw nag ni jadd na cere ju góor mooñ jàkkaarloog say say say mbokki jëkkër mhm. waaw loolu waaye ñam fa fekk ak a mat mhm. ñooñu tontu ko ciy taasu waaw ndagam moom mi jeeg nekk ca biir kër ga moo mën a wëlbati waxe ko noonu am fit am fit ba taxaw ni guy yàgg fa ne daaw sax fa ne euh, ni guy. kenn du la gërëm man gis naa ci ko naa ci koo xam ne njëkkeem la poñe goroom di wax mu saaga ko i jëkkëram ànd ak moom mere ay njëkkeem mais boobu est du jeeg bu bon ba la waa jeeg même yaa ngi koy wax sànq yaa nga lan moo waral xale xam ne mhm. danaa la def def ko waaw loolu jeeg day ragal mhm. ragal goro yi ragal njëkke ya waaye yàlla nañu yàlla musal ci jeeg bu ñeme. amu fit te nday am fit ñeme. jeeg boobu bàyyil. yàlla boo ci boole nag jëkkër ja ca boppam doon nekk. <laughs> góor ñàkk gis nga jooja damay waxtaan toujours ni leen benn jeeg sax fi mu ne ñàkkatul fayda. Mm-hmm. Mm-hmm. te man d'accordatuma sax jeeg du ñàkk fayda yàccaaral. waaw bëggatuma benn jeeg bu bu bu góor di manipuler. waaw bëggatuma ko. ndax ñaari loxooy takk tubay ñaare loxooy takk. waaw ah bon. waaw ah. ay manipuler nii di la manipuler. déedéet yow boo nekkee ci li la war. def li la war. waaw sëy. jox cër sa bopp. sa bopp respecté sa jëkkër ak ñi nga war a ak ak ak ak ñi mm-hmm. yaakaar naa ni góor du mm. te boo xamee aussi. noo koy bu fekkente ni si man dama koy wax. jeeg mm-hmm. ji di ko dégg du ñu xam ne ñu koy déggee dañ naan docteur jeeg gi nee na. Mm-hmm. benn jigéen benn góor doo dootu ko manipuler. Mm-hmm. man dootuma nangu kenn ku ma manipuler damay taxaw affronter la jàkkaarloo mm-hmm. yow ak déedéet. xam nga fan la moo tax sànq ma wax la ko ni la yëf yi fii la. Mm-hmm. faram fàcce ko doo xuloo te doo nga neex deret lool. stratégie la. gumba taxloo. di nga dégg loo war a tontu dellu ne pat. moo tax sànq man la pat dafa bon ci bët waaye dafa baax ci jeex. Ah da ngay dégg loo war a tontu. Mhm. daal ni pat. noppi. gis loo war a wax sa jëkkër daan ni pat nax saale ko. noppi. daal di noppi. Mhm. ab jeeg noonu mooy tànkam la da ngay muus. Mhm. waaye jeeg buy boole boole guddee bu guddee ma sal sama nuisette wala ma def sama sër bu gàtt bu ŋapp. jàkkaarloog sama jëkkër macha allah. diw samay wen tooj ko daal di ciy def biriyan. jàkkaarloog sama jëkkër. boole boole guddi. Mm-hmm. mu ni la tëddal bu subaa ma réglé ko bëgguma boobu jekk. mais loolu moo fi am. jeeg ju bari dañuy boole seeni jëkkër. waaw boole guddi. ak seeni yaayu jëkkër ba ñu am fitu poñe leen mbaa ñu boole seeni jëkkër ak seeni rakki jëkkër. Mm-hmm. mbaa seeni magi jëkkër. Mm-hmm. ba ñuy rayante. ñu boole boole boo xamante ne xam nga lu wax. diw de dama koo gis mu romb ma dem di ma saaga bu ko defee. boo doonee góor gu ñàkk fayda nga fipp jóg xaatar xaatar rek say mustaas <laughs> dangay daal di dem yenu sa yaay <laughs> mbaa nga yenu sa rakk mbaa nga koy tong mhm. mbaa ngay tong sama waaye nañu xam ne nag tey bës la ëllëg bés la mhm. te ëllëg du añ du reer waaye dafa jara sedd mhm. te yow jeeg boo amee fit keneen ñëw amul fit waa kenn kenn waru ko nag tagg nag mbaa mu ah, waaw waaw te dañuy wala nag kenn ko fi defe yaay kan Mm-hmm. moom ma jaaxal mais nag instant ni nag waxtu bi xoj nañu loolu Abdou. danga may baal àq rek nag dañuy baal waxtaan bee neex mais nag dinaa dugg ci li nga xamante ne moom laa doon annoncé euh, tout à l'heure mooy euh, ma joojoo Tati Rama euh, li nga xamante ne mooy góor ñi nga xamante ne weeru koor ku xam weeru koor Tati xam ne weeru koor dafa bëri dépense. Mm-hmm. jigéen ñi dañuy daw wutum bagage. jënd ay assiette ak yooyu donte sax nag euh, comme ni nga ko waxee ci plateau yooyu yu weesu yëpp yéen ñaar euh, muy jéeg warul xaar weeru koor. ñu mm-hmm. soog a ay bagage um koor. Mm-hmm. ak ay vaisselle yu bees. di beesal à chaque fois war nga jënd. di changer di nettoyer et tout. Mm-hmm. mais ñi nga xam ne aussi ay góor lañ ci kër nekk kilifa nekk ay borom kër duñu joxe dépense gu mat. te bu ñu leen joxee det bu ñu joxee seen jëkkër yi seen seen jabar yi benn 3000 francs par exemple ñu ñoñal leen ginaar. toggal leen ci reer bu neex ndogu gu sax sàpp mm-hmm. ba pare ñëw toog bankaale ko mm-hmm. loolu tamit est-ce que du indi mm-hmm. waaw xam nga euh, góor du nay bëgguma góor bu nay am na góor yu avaar bëgguma ko am na ci góor ñoo xamante ne nee naa la ki la gën jëkkër moo la gën waaw ah, waaw góor day indi yotaale day gàddu mbuus bu demee ville sax ñëw mbaa mu dem am ko mu waxanteel ñibbi si waat dugg génn rek. Mm-hmm. war nañ naale mbuus. <laughs> kese waa daf ma xoo man dama koo bëgg. waa xam nga ne day tax a gudd fan. Mm-hmm. te day dindi cat. Mm-hmm. te day wàññi bàkkaar. day tax xale ya gën laa ñaanal ak mag. day wàññi day wàccee sa tension. day boole day boole day boole kër ga waaye yàlla yal nañu yàlla musal ci góor goo xamante ne du gàddu mbuus buy joxe dépense mu ngi dugg ci douche yi. te naa la sama weccat. buy joxe dépense. day xaar ba génn ci mbedd mi buy joxe dépense day bàyyi ba sàngu génne la muy génne bëgguma loolu ku bëgguma góor guy laaj buy dugg ci duus ñëw baale kalpeem doguma la sax doguma leen mais surtout li nga xamante ne mooy transfert d'argent ba mu ñëwee ba tey euh. bàyyi bu ma demee ma yónnee la ko si xarala yooyu ñu yónnee wi yooyu la ñuy def léegi gis nga ba àddina yi ba mooy tendance bi daal di ciy def code bu ko defee doo xam code ba waaw àddina yi baax góor da daan joxe dépense te du xam li mu joxe ñaata la wallaahi day ñuqi rek bëgg naa ko toggal lu neex bëgg naa ko man mi waaye nag góor goo xamante ne bu la joxee tey cent franc foog na ne jox na la milliard mhm. boo la foog ñàkk gàddu mbuus ah wax dëgg yàlla te nag gis nga góor ñooñu boo leen di xool en général. Mhm. bu ñu génnee ci mbedd mi maye fa million. Ah waaw joxe fa loo xamante ne. jaay laalo nag fa cere ja suusee. Ah waaw jaay laalo fa cere ja suusee. gis nga jabar da ngay jox mu ñaanal mhm. jox sa njaboot mu ñaanal la bokk la dara ci àdduna. déedéet gis ngay beeg sàmba allah jabar mhm. doom booy saral seen xol yàlla moo lay teral. nga ñàkk saral seen xol nag. Mm-hmm. doo am lu la neex ci àdduna mm-hmm. kon yàlla nañu yàlla musal ci góor gu nay baaxul ba dama koy xof de bëgguma ko mm-hmm. bëgguma ko nañu yàlla musal si si si góor gi nga xamante ne daa nayta avance joxe lu mat te day joxe as tuut ñu ñoñol ko bu pare na naan waaye yow la sama wecc waaw la ma la joxoon lii yëpp nga fi toog amee ceeb ba tey ana woowabar ana sama wecc ana mone bi waaw lépp nga togg wala da nga koo may wala nangam di déedéet xam nga man lu ma gën a bañ subaana ma góor goo xam ne da day teg weccitam yow soxnaam. Mm-hmm. nga soxla. Mm-hmm. mu leer ko ne même bu doon junni la la jox. Mm-hmm. junni boobu doyu la nga jël ci cent franc. rek jënd xorom cent franc rek laa wax. mu ñëw di la laaj cent franc. sama weccit bi ma tegoon fii. li tax nga laal da nga koy génne li tax nga laal ko jox naa la li ma lay jox ba pare bëgguma boobu góor. góor gu baax warul xam ñaata lay joxe dépense par jour ci bu ko amee. bu ko ah. amul nag moom na ko ko jabaram jabaram am ko na ko ko jabaram di jox ba mu ne. découvrir gis nga sëy ñaar yëpp la. Mm-hmm. Mm-hmm. yow mi nga mm-hmm. yow mi nga xamante ni si yow yaay góor. boo amee joxeel. gis nga doom. yaral jabar yàqal. yàqal ba bu ëllëgee fu mu dem danaan aax. Ah, fexe naa ba. ut defi caprice jóge ca sama waajar waaye kenn du moom wallaahi du buse maître sa doom yar ko réglé ko teg ko ci kot ndax xamoo fu muy dem kese moo xam mu doon góor moo xam mu doon jigéen te nag dund woyul doole woyul kon yaral sa doom waaye sa jabar yàq ko mm. waaye ñàkk a yàq sa jabar ba sa jabar bu génnee gis jëkkëri diw kat def na nangam ak nangam ak jigéen ak ne xelam gàtte. ak mhm. jigéen ak ku jege ci moom. ak bëgg-bëgg yu bari. ak bëgg-bëgg ci moom. Mhm. bu ko defee mu gis ko daane ne ah walaa ñu mën a ko kott amuñu baax. déedéet mhm. xoola kii rek. ni mu moddee. xool ko ni mu ñaay xool ko ni mu nàngami te jëkkëram ji xoolal li mu koy defal man xoolal man ni man ni ma mel. wallaahi te sama jëkkër ji gisul dara ci li may def. day xet jëkkëram sax. ah day indi xeebaate dana yor urus. du ko xam. Ah. jàppe ko përëm. Mhm. ba mu wadd ci loxoom. waaw keneen ku la gën foofu téye ko raxas. nit dina yor përëm. Mhm. téye ko di ko raxas di ko raay di ko nebb. mu gisee mu doon jamaa. Ah. Mhm. moo tax ma ne la sànq. jigéen ñi ñi ngi rawante ci muus. waaye góor ñi it ñi ngi rawante ci muus. muus gi nag moo di nañ ko wane ci seeni jabar. man damaa bëgg ci góor goo xamante ni si. lu mu romb wala lu mu gis danaan sum lii bu ko sama jongama ja solee macha allah. lu mu gis rek sa jabar ja la jekk daal di ñëw sànni ko ko waaye madame solo lii ma xool waaye. dana ko sol. Mhm. sañ sa ca. Mhm. mu jongama lool. waaw góor biir ca daal di ca li bax ndiku. tubaar fa kàlla macha allah ba ngeen am ci li nga xamante ni si moom ngeen bëgg. Mhm. góor ñi nañu muus te jàppale jigéen ñi. te joxe dépense gu bari. tey joxe dépense weeru koor gi ah, dafa metti rawatina rawatina. ci weeru koor mm-hmm. Mm-hmm. waaye it jox sa jabar dépense jigéen ñi it bu nu waaye jigéen ñi tamit loo am bokk sa jabar day taxaw bu fan waaye jigéen ñi tamit bu nu mm-hmm. yàq moo yàq mën na ñàkk dañoo toll ci jamono joo xam ne kenn ñi ngi koy jox dépense mu lu ne mu togg ko te boo xasee ba wor sa biir day dee doo ca mën dara bu subaa nga betti ko ci ay mbuus teg ko ca poubelle ba amaana ki nga dendal kër lekkul. non jigéen dafa war a sakkanal. amaana poosu jëkkëram. sa mbokk di nga am mbokk moo xamante ni si leer na ko ni. bëgguma boobu. Mhm. fonde bi muy togg ndogu ci. fonde bi muy togg ndogu ci. Mhm. bu ñu toggee ba guddi gi xaaj moom lay naanaat. Mhm. bu ñu xëyee xëdd ñu tàngalaat ko ñu naan. kon yàlla di lay joxaat leneen. ba waaw. moom lañuy ñuy tàngalaat. xëdde ko daal di continuer waat. nañuy sóoraale ñooñu. nañu sóoraale ñoom. ñi bëgg te amuñu sax bëggul yàq te amuñu. non yàq mën na ñàkk. Mhm. mais day togg lu neex nag. waaw defaree lu baax nit ñu lekk ba suur. nga sóoraale ca ñeneen ñoo xamante ne sax nag. xam nga mën nañoo ndox seen xol dajul euh, jotu seen ginnaaw. nga sóoraale leen tibbal leen jox leen. yàlla fay la ci ci ci ndaxte ñu bari ñoo xamante ne si fi mu ne guddi gi mooy koor Mm-hmm. guddi gi la ñuy dox seen la ñuy dox seen activité guddi la ma dem ko jooja mbaay waay mm-hmm. waaw bu dikkee fekk na macha allah fekk fa <laughs> xam nga ne duñ fa ko fekk ah <laughs> ne duñ fa fekk loolu bu ñu dikkee fekk nga def ceebu jaga def tëllu jën def nenu jën dégg nga ah def xaru bopp ba dégg nii dégg nga tarkal la macha <laughs> man daa ñuy laa bëgg nekkatee jeeg ah! buy togg mu neex lool. Mm. waaw ceeb day tax waaw. ba pare guus. mais tamit man ceeb weeru koor bu yu saf kaani yeeg. poobar yeeg aussi tamit war nañ ko wàññi parce que weeru koor ceeb bu tamit dafa war a yem. déedéet nañu wàññi dose bi tuuti. <laughs> waaw wàññi dose.